yal na yàlla dundal ñu ak alquranul karim yal na nu yàlla bëggaloo alquran yàlla yombalal nu dund alquran a taysiru wa tawfiq ñuy dund alquranul karim ba faw ngeen amee ko ci kër gi fii di la maison du coran yal na yàlla sàmm leen te nuy sàkku ci yéen ñaan bu baax a baax kër gi di gën a yaatu lool ndax yéen ñëpp sopp alquran da ngeen a bëgg alquran lool moo tax ngeen di topp jotaayu alquran yi kon yàlla na mbir liggéey bi gën a yaatu lool ba mu gën a yomb ci yéen parce que xam nañu ne topp émission yi day xaw a métti ci yéen lool ñenn ñi mënuñoo yegg YouTube ñenn ñi faw ñu jënd connexion wala ñu am coono bu nekk waaye daf leen koy jaral ngeen topp jotaayu la méthode du Coran yi su leen neexoon comme ni mu xewee xewee ci réew mi ngeen jël seen connexion seetaane ko leneen waaye ngeen jël ko ne da koy toppee alquranul karim yàlla dina leen ko fay taxaw yowmal qiyaam ne yàlla temps bii ci YouTube bi laa ko doon def yàlla ne la loo fa doon def nga ne dama doon topp jotaayu alquranul karim yàlla loolu loolu dafa neex lool dafa neex dafa neex kon yàlla na liggéey bi gën a yomb ba nga xam ne di ngeen mën a toog ci seen kër yi du jar sa dugg YouTube waaye di ngeen mën a am jotaay yëpp incha allahu taala mën na am yàggatul di ngeen ko am incha allah ndax yàlla dina gën a tey siiral alquranul karim fu ngeen mënti nekk rek gën leen ñaanal kër gi di la maison du waaye fu waay mën a nekk te mën a jàpp ci liggéey bi ñëwal nga jàpp ci loolu man maa leen koy lancé comme message ci jotaay bi parce que njaboot gi dañuy bëgg topp émission yi waaye léeg am ay jafe kon fu waay mën a nekk nga nekk doomi daara wala nekk njabootu alquran donte jàngoo alquran liggéey boobu soo ko mënalee alquran kay nga jàpp ko ci maanaam la maison du lépp loo xam ne moo ci war ba nga ne mu mën a mel ni yeneen télé yépp nga xam ne ci réew mi nga xam ne nit ki day toog jël ko maanaam di jàppee di mën a topp émission yépp ba nga xam ne ñëpp di ko mën a topp ci àdduna bi ku def jéego boobu ba yowmal qiyaam yàlla def la koy fay insha allahu taala ku ko mën bu ci xaar kenn numéro baa ngi ci suuf woote ci nga ñëw jàpp ci liggéey bobu té nak ñu wara waxtané kenn ci asalafu salih nga xamantene mom su déggone alquran rek da fay def ci mom lu reey day joy ngir alquran day yuxu ngir alquran daanu xam ngir alquranul karim nga xamné lélé ci mag ñi am ñu meloon nonu mën nañ ci tuddu ku jégué muy gor gui Ali Guèye rahimahullah mom so doon jàng alquran ci wetam ni muy yuxo parce que alquran namu mel ci ñoom la yalna yàlla bur bi subhanahu wa taala yeeram ko te yàlla barkel njabotam ñu ngi profito di nuyu ba Thiénaba ma sha allah jël nuyu bi tek ko ci loxo Cheikh mohammed Ali gay Abou Taha mu jotal ñu ko rakkam yëpp macha rabbi ki nga xamantene mom moy Ali Ali ibn Fudayl ibn al-Iyad mu nek ku ñu xam ci asalafu mal qur'an nga xam ne su déggoon alquranul karim rek joy yombon ko lol waye daanu ci xam yombon ko lol ñu njëkkee ci nettali bi nga xamantene mom la Abu Bakr ibn al-Ayyash Aboubacar Aboubacar ibni Ayaash nettali ko mu ne dafa am benn bés damaa julli woon sallaytu xalfa Fudayl ibni Ayaad damaa julli ci ginnaaw Fudayl ibni Ayaad salaat al maghrib julli timis nee na ba may julli julli timis waaye wa aliyun ibnuhu ila janibihi doomam di ali muy ali ibni Fudayl mu ngi ci sama wet ñun ñu nekkoon di julli ci ginnaaw baayam julli timis baayam tari faatiha ba pare teg ci alhaakumu takaathur yalla ne kumut takathur ya nit ñi fatelo na leen lo na len lan ak takathur bëgg bari le tay ji ku nekk da nga bëgg nekk millionnaire ba tax ngeen seen borom ñi ñu ngi wut xaalis diko wuté wuutee façon bu nekk jaay nañu seen ngor jaay nañu seen diine ba'ul a'raf wal 'adat wal adyan fatte nañu diine fatte aada am lo xamne xam seen ngor sax fatte nañu ko nañu am xaalis rek ak nuñ ko mën a amee baax na laa illa billah yàlla ne alhaakumu takaathur bëgg barile moom ngeen topp ba fàtte seen boroom hatta zurtumul maqabir ngeen nekk ci loolu ba daa daanu ca bàmmeel ya ba dee dikkal leen te yëgoo leen bàyyam di jàng ba mu yegg ci yawm al qiyam la tarawunna jahim daa ngeen gis safaray jahim ba mu yeggee foofu rek saqata ali ali daa di daanu ca julli ga daa di daanu ali ibnu fudayl daa di daanu ala wajhihi ba muy daanu dafa dëpp xarkanamam moo dal ci suuf maghshiyan alayhi mu daa di xëm laa hawla wala quwwata la tarawunna aljahim daa ngeen gis safara daa ngeen gis safara soosu tax mu daa di dëpp te ñun bés bu nekk ñu dégg saar wii lan lay def ci ñun mbokk yi mag ñi dañ ñoo raw di dem nañu départ balaa ñuy tardé balaa muy wéy balaa ñuy tu wax loola ngeen di tuddee ci tubaab li tubaab trop tard deewaguñu mën nañu ko départ leen xoolaat leen alquran du ma yuqat te du ma sonn ci di ko wax nañu jangatat jàngataat alquran nañ ko tadabbur mu daal di daanu daal di daal di xëm nee ne baayam daal di continuer laaya googe continuer saar wa nee ne man nag Abu Bakr moom mooy wax Abu Bakr bin al-Iyaas nee na ma daal di wax ci sama bopp ma ne ma wax ci sama xel ma ne way xaka maa indaka min al xawfi ma inda fudaylin wa ali yow lu tee lu la tee jooy xanaa yow ragalee woo yàlla comme ni ko ali ak baayam ragalee nee ne fa lam azal antadiru aliyan fa ma afaaqa ila ma toog di xaar ali timis la woon mbir ma waaye ba xaaj gu mujj ci guddi gi ca la ali door a ximmaliku allahu akbar te timis la xamoon ngir benn laay alquranu karim محمد بن ناجي رحمه الله دا فاي نتلي مو صليت خلف الفضيل بن عياد دا ما جولي تي غيناو فضيل بن عياد مو ويجرو علي بن علي بن فضيل نيني فقرا سوره الحاق بامو تري فاتحه با بار مو تك سوره الحاق لولو جولي فجر لاون نيني بامو ييغ تي واخو يالا بي منان خذوه فغلو نيت كي تخو يوم القيامه ki daan def lu ko neex fàtte boroomam fàtte lislaam bul faale la doon dundu la hawla wala quwwata illa billah yàlla ne xuduuhu fa xulloo ko leen ko ngeen manute ko yeew la xoye yowm alqiyam thumma aljahima sallu sànni leen ko ca sawara thumma fi silsilatin daruha sab'una ziraan fasluko la hawla wala quwwata illa billah nee ne ba mu yeggee fii rek galabahu lbukaa ki nga xamne mom moy Fudayl ibn Ayad galabahu lbuka joy dal di koy noot manam joy bi dal di koy gañe ba meunatul continuer wa kaana ibnuhu ali domam ali fi saff maana mu ngi nekkon ci sàppe bi ba bayam yegge fi rek fa saqata maghshiyan alayhi mu daal di daanuwaat di xam la ilaha illallah hakada kanu ya'ishuna ma alquran ali dal di wat xam wa rakaa thumma qam fudayl dal di ruko ba mu jugaatee maanaam ci ñaareelu rakka ba fa qaraa baqiyata suura fi rakaati thaniya mu daal di jàng li desoon ca saar wa ci ñaareelu rakka gi nee na thumma xamalnaa aliyan wa adxalnaahu manzilahu ñu daal di yenu ali dugal ko ca kër ga fa lam yazal mugman alayhi ila baad al asri lan la woon julli fajar ali dafa continuer ca xëm googee ba ginnaaw julli tàkkusaan ginnaaw tàkkusaan lay door a ximmaliku xoolal fajar ba ginnaaw tàkkusaan lu ko xamloo tooñal ñu door ko de benn aaya alquran dafa dégg alquran daal di daanu xam mbokk yi nañu jàjjeeku jot na su fekkee ne ñun ay nit lañu nii la salafu saalix yi meloon mag ñi nii lañ daan dundee alquran nee la jotaay bi dañ leen di dundal di leen andil mag ñi di andi seen fan yooyee di ko dundaat di andi seen taxawaay yooyee di ko dundaat di andi seen jotaay yooyu di ko dundaat waaye ak laan alquran téere borom bi subhanahu wa taala faw ñun ñuy tegewaat ci yoon wi xool ñoom nan lañ daan dundee alquran ndax ñun ñu ci yoon wi nee na ma daa di laaj baayam muy Fudayl ma ne ko haada alladi yusibu aliyan min ayi cheyin yakunu ya aba ali yow Fudayl di bàyyi ali lii di dal ali lu ko waral lu tax mu gaaw a daanu lu tax mu gaaw a xëm su diggi benn laay rek daanu xëm Fudayl ne ko laa alamuhu min naqaai alqalb لدي جاب من دو لن لدو الخلب سل نقاء القلب خلب سل رك مو موكي ورالتي القرآن الكريم إسماعيل آية توصي مومنين بينما نحن ذات يوم عند فضيل بين بس دانيو نكون فضيل رحمه الله فقرأ رجل قوله تعالى أم بين واي جنغ وخي اللبور سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين bés ba nga xamne nit ñi dañu taxaw ci seen kanamu boroom dafa jàng laay gi rek fasaqata ali ali dadi danu wat ali ibn fudayl daal di daanuwaat maghshiyan alay mu dadi xamat la hawla wala quwwata illa billah dafa deg laay bi rek dadi xam fa qala al alfudayl shakara allah laka ma qad alimahu mink jere jef suma dom li nga xamne mom la yàlla xam ci yow moy lam waxon xol gu sel moo tax ki nga xam ne mooy abu euh, suleyman ad-darani dafa doon wax ne kaana ali ibnu fudayl laa yastatiu an yaqra al qaari'a nee na ali mënut woon jàng qaari'a surat al qaari'a mënu ko woon jàng wala tuqra'u alayhi te ku ko jàng ci moom mu xëm maanaam nit koo xam ne soo jàngee suratul qaari'a rek mu daal di daanu xëm te moom mënu ko woon jàng su ko commencé rek du ko yeggali ndax day daanu xëm mbokk yi lii rek doy na ci ay namaasij ci walu mag ñi nan lañ daan dundé alquranul karim suñ ko topé du jeex fay yaatu lool té tombu yu ñu wara wax dafa bari té lepp du génné alquran ku alquran ñor jotay bi yaa ko moom majalis la bo xamné su dul won yombal yi yalla def ku ñu fekkul ci daara ja do ko am majalis ku ko soxla ñun dañ ci sonu dañoo lal basan ba sonn dañ daan fajaru ci sëriñ bi tok am majalis waye bi fadlillah ak yombal gim ko awé ci la maison du Coran di ngeen ko am foyé mëna tok kon moo tax ma ne ñaan leen liggéey bi gën a yaatu insha allahu taala kon tey jii foofee la nuy yemale mag ñi nga xamante ne daan nañu xëm suñu déggee alquran jotaay bii di ñëw ngeen ñaanal ñu jàmm ak wér ñu mën a andi la gën a yéeme ñi nga xam ne na nañu benn aaya wala dégg benn aaya alquran daa di daanu dee la hawla wala quwwata illa billah ya laha min husnil xaatima اللهم ما كان من ثواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته